Uh. dumidani ci néegub yàlla ba di jàng ak téeréem loolu yàlla wàcce ci ñoom ab dal yiir leen ak yërmandeem yebal ay malaakaam yu ñu wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe yi ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi yàlla yombal ko lool amul lenn loo xam ne danga koy joxe fan yi ñu génn dégg naa benn daje bu amoon bi suñu réew bu aju ci wàllu ay musique ñu ne bii ba gën a néew mooy cent mille francs loo ne bokk da gis ni yoonu àjjanaa ngi nii yomb lool yàlla di ko may am na seytaane aw yoonam da seeral lool waaye nag taaral na ko taar boo xamee ni nii ndax ne li ëpp ci nit ñi dañ ciy suur allahuma lu dul ñi mën a am yàlla may leen tawfiq ñi fekk daje yi bariwul dañ ko méngaleeg ña ko soxla fa lillahi alhamdu yàlla indi ak yombal te mooy la nga xam ne nii moom lañu ñu tey ci internet boobee mu am ñu koy jëfandikoo ci groupe yi nga xam ni dafay am ci réseaux sociaux yi waaye yëpp ak ca la nga xam ni mooy site yi am ci biir internet bi rawatina bu dee tafsir bi nga jëm ca xam sa diini ak la xam ne mooy xam point xam islam point com nga xam ni daan ko ca mën a jaarale nga fekk fa archive gannaaw ba it dañu yàlla wërsëgal suñu télévision bu bees bi di Islam TV xam ne tey li ëpp ci Dakar bees na ko mën a jàpp ci kaabal yi nga xam ne mooy am loolu nag bokk ñu ñaan ñooñu koy taxawee yal na yàlla fay leen doonte ni itamit xam leen ne mbokk la nekkoon jubluwaay ci jihaad bokk na ci jottali kàddu yàlla su ko defee képp koo xam ne da la yàlla wërsëgal mën nga koo jël di ko jëmale ca ñooñu itamit ngir jàppale leen loolee da ngay gis sa bopp rek ngay defal kon tey mooy ñaar fukki fan ak juróom ci jumaada saaniya ci 1441 di dëppoog le 19 février ci 2020 incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal suñu bind bu jëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 mooy ña nga xam ne seeni julli day seen julli dañ ca nekk di ca toroxlu wallazina hum anil laghwi mu'ridun ak ña nga xam ne lépp loo xam ne ay caaxaan la dañ ko woon gannaaw caaxaan mooy lépp lu amul njëriñ lépp loo xam ne amul njëriñ ci sa wàllu diine ci sa wàllu àdduna lëxwa la ñoom dañ koy du mooyu wallazina hum li zakati fa'iluun mooy ña nga xam ne it azaka dañ koy def walazina hum li furujihim xaafiduun ak ña nga xam ne la nga xam ne mooy seeni pay ñoom dañuy doon jëkka wattu mooy seeni awra rek illa ala azwaajihim xanaa lu dul ca kaw seeni soxna aw ma malakat aymaanuhum wala boog ña nga xam ne moom na ko seeni loxo muy seeni jaam فإنهم غير ملومين يملني دي نك نيني يد فمن يبتغى وراء ذلك كو خمنني نك دا ساكو غنو لولو دي فأولئك هم العادون نيوم دي نيوي نيغا خمني نيوي نيجي ديو والذين هم لأماناتهم أك نيغا خمني دي لنغا خمني موي سين كولو اكسن وأهدهم أكسين ديجين ديجنتي راؤون دنكوي صمّ walazina على ala salawatihim yuxaafizuun ak ñi nga xam ne seeni julli dañ koy wattu ulaika humul waarisuun ñooñu day ñoy ña nga xam ne ñooy donnu alazina yarisuuna alfirdaws ñooy donn àjjana firdaws hum fiha xaalidun ca ñoom dañu fay sax ba faw yalna yàlla boole ñu ca ñu ngi noonu mbokk kii di omar ibnu alxataab radiallahu anhu nee dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mujj la ko daan jàpp heure bu wax yu dee wàcc ci moom jàpp ko nga xam ne sahaaba yi dañ koy xam bu doon jamono sedd bu tar rasul sallallahu alayhi wa sallam day ñaq bay siit baka loolu jàppee ba dindi ba mu teggeeku mu daal di jóg sujud sujud bu yàgg bi mu siggee mu yëkkati loxoom ya daldi ne yàlla yal nag ñu jox ca bañ ñoo xañ yàlla yal nag ñu teral bañ ñoo toroxal yàlla yal nag ñu yokk ca bañ ñoo wàññi yàlla yal nag ñu gënale ba na gënale kenn ci suñu kaw wëlbatiku ci sahaaba yi ne leen yàlla day wàccal na ma fukki aaya yoo xam ne ku ko taxawal dem aljanna yàlla na yàlla boole ñu ca mbokk aayat yooyu mooy lii ñu jàng léegi suñu boroom subhanahu wa taala ko wone texe goo xam ni jullit ñi dañ koo texe mu ngi mi ngi noonu tey boo demoon fa ñuy joxe résultat bac yi wala leneen ñu ne ñi réussir mooy ñii nga xam ne kon ku ñu tudd rek da ngaa kon suñu borom mi ngi jëkk a wax texe gi mbokk texe mooy mucc ci musiba jot la nga xam ne muy xéewale gën a kawe ñan ñoo ko moom mooy ñi gëm yàlla woon ñi gëm li yàlla subhanahu wa taala gëmlu nga xam ni lu bari la waaye juróom benn ponk moo ko ëmb ñi gëm yàlla bokkaale ko ak dara gëm ay téeréem gëm ay yeneentam gëm la nga xam ne nii moom mooy ay bisu penc gëm la nga xam ne nii mooy ay dogalam gëmi malaakaam nga xam ni mooy juróom benn ponk ngëm yooyee waaye ndax ngëm dana doy déedéet illa allazina amanu wa amilu salihat boo ko ngëm balaa dëggu jëf moo koy dëggal suñu borom lan la jëkk a wax mooy ñi nga xam ne seeni julli dañ cay toroxlu mbokk julli dafa am zahir am baatin mooy lu feeñ ak lu nëbbu li feeñ mooy li ñuy gis loolu war nañ caa wane ak toroxlu ca muy kiy taxaw di julli mayetuñ ko mu lekk mayetuñ ko mu naan maytuñ ko mu wax maytuñ ko muy gestu gauche droite déedéet dafa jëmm ji daa war a toroxlu waaye naka noonu it xol bi dafa war a toroxlu mu xam ni mi ngi taxaw ci kanamu boroomam mu xam ne mi ngi déeyoo ak boroomam loolu mbokk julit wareef la ci bépp julit ba ba muy dugg mel mu nekk itteem mooy man julli gi may wax ak sama borom lan laa ciy wax kala way julit loo dégg di dégg di arab lan la fatiha di firi yenn saar yi ngay tari lu muy firi la nga xamee ni mooy askar yi subhaan rabbi al azim subhaan rabbi al rabbi xfir lii taaye ja lépp war nga xam lu muy firi ndax yaa ngi déeyoo ak sa boroom ca loolu mooy tax nga toroxlu rasul sallallahu alayhi wa sallam ni nit dana julli ba pare julli gépp mu toroxlul ko yàlla ñu bindal ko 10 sur 10 keneen julli ba pare ñu bindal ko 9 kee 8 kee 1 am na koo xam ne zéro lay am ndax bi mu kàbbaree ba bi muy sëlmal xolom nekkul ci julli yi loolee moo ko kon ñu bàyyi ci xel bu baax lépp luy daq ak torox toroxtaanga ci julli ñu moytu ko bul julli fekk danga soxla woon bul julli fekk ne ay ngëmmint yu tar mi ngi nekk ci yow ak yu deme noonu moy lu jëkk li ñaareel bi suñu borom nee na ñiy nar a dëkkee firdaws mooy ñi nga xam ni lépp loo xam ne ay caaxaan la amul njariñ ci ay wax ci ay jëf ci ay xalaat dañ koy dummóoyu mu wax feneen ca furqaan wa ida marru bi laxwi marru kirama heure bu ñu rombee ay caaxaan yu amul njëriñu àdduna amul njëriñu àllaaxira dañ koy dummóoyu mbokk ki nga xam ne day dummóoyu caaxaan kooko bàkkaar taxul ñuy wax kon bépp wax boo xam ne waxu bàkkaar la jëfu bàkkaar loolu moom taxul ñuy wax mais la nga xam ne amalu ko benn njëriñ la yàlla ne subhanahu wa nee na dañ koy dum lool loolu ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina mbokk jamono bi ñu yàlla nattoo lu baax lool am njëriñ lool muy portable waaye nag nekk fitna lool fitna bu nekk porté boo xam ne ku nekk jege na ko gën a nekk lu la gën a jege kum mën a doon ngelawaay nañ ci bàyyi xel portable boobu ci lan lañ koy utiliser portable boobu temps bañ koy jagleel ci lan lañ ko jagleel ndax dañ koo jagleel ci loo xam ne day yokk suñu ngëm yoo xam ne nii dafay defar suñu àdduna wala dañ koy jagleel ci ay xabaar yoo xam ne amul bopp amul génn ay passant yuy neexal sa kese ngal la waaye mbokk déedéet anil laaxu yi mu'ridoon jullit dëgg am na lu ko itteel ca temps mu koy jël di ko yàq ci loo xam ne amalu ko njëriñ ci diine amalu ko njëriñ ci àdduna ñetteel bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ñi nga xam ne zakat dañ koy def zakat boobu la ca gën kawe mooy zakat bi ñuy joxe ci wàllu alal nga xam ne yàlla lënkali na ko ak julli du nangul kenn ay julleem fekk war ngaa génn zakat ca génne woo ko comme na ko ibnu abbas doon ñettali nee ni lii yàlla da leen lënkale du jël benn lu dul ma ànd ak moroomam topp leen yàlla topp yonenti yàlla ku ne day jaamu yàlla ca nanguwul topp yonenti yàlla yàlla du ko nangu mooy def jaamu leen yàlla def njëkk ci way waajur yi ku ne da ngay jaamu yàlla ba pare di toroxal say waajur yàlla du ko nangu aqimu salaa wa aatu zaka taxawal leen julli génn zakat ku ne yaa ngi julli ci doo joxe zakat julli ga yàlla du ko nangu loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne borom xam-xam yu bëri it dañ koy firee zakatu nafs mooy tàggat sa bakkan bi ba lépp loo xam ne nii yàlla da ko caa xaraamal nga dox sa digganteeg moom tàggat ko ba la yàlla faratal ci yow nga fexe ba defloo ko ko zakati fa'ilun la nga xam ne mooy ñeenteel bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne mooy ñi nga xam ne dañuy wattu seeni pay seeni awra dañu koy wattu xanaa lu dul bu ñuy ànd ak seeni soxna ca it mooy bu ñuy ànd ak seeni jëkkër loolu mbokk muy woñe ni diini lislaam awalan sa awra wuroo fexe kenn di ko gis ku dul sa soxna wala sa jëkkër ngallaawaay du ndey du baay du kenn ku am droit gis la nga xam ne sa awra la lu dul sa borom kër walla boog sa soxna suñu borom subhanahu wa taala bim ñu digalee lii mu ne nag xanaa lu dul ña nga xam ni dañoo jëm ci seeni soxna loolu muy wone ni mbokk lépp loo xam ne doomu aadama ma ci jëm ca du soxnaam ak jamono bi jaam yi jigéen yi di am jaamu sharia bu jaam bu sharia reconnaître suñu boroom yàlla subhanahu wa taala na yow day yaa ngi jéggi dayoo loolu moo tax bokk na jéggi dayoo bi gën a garaaw bu doomu aadama jéggi dayoo mooy góor bàyyi fa soxna ya dem na day dem ca moroomu góoram ngir faj aajoom jigéen bàyyi góor ña dem ca moroomu jigéenam ngir faj aajoom loole nga xam ne tey àdduna bi jàpp nañ ne c'est des droits universels ba bépp réew boo xamee ne ni yaa ngi gàllankoor loolu dañoo jàpp ne yow yaa ngi gàllankoor dund gu dal ci kaw suuf bal dañ la war a xeex ma mbokk mbooli mi diine ko asamaan dañoo araamal góor jigéen dañoo euh, araamal lesbienne dañoo araamal bépp forme boo xam ni nekkul ci diggante nit ki ak soxnaam yéen ndaw ñi it ngeen bàyyi ci xel li ñuy tuddee ay masturbation di foye sa bopp ba génne la nga xamee ni nii mooy say mëni yu loole it da gis ni suñu boroom yàlla da ko araamal ci aaya bi soxna soosee suñu borom yàlla wax sax am na ay période yoo xam ne dala ko araamal ca mooy soxna si daggan na waaye bu gisa régal dagganatul de mu ngi ci dereti wasin dagganatul de ba ci weeru koor daganul de la nga xamee ni nii moom mooy di ko jaare ca gannaaw fa góor jigéen yi jaare loolee daganul de waaye bu dul looloo suñu borom yàlla nee na ñooñu day kenn yeddu leen yonent bi aleyhi salaam béggalaate ci ne kenn yeddu la ay amoo benn bàkkaar pour ànd ak sa soxna yonent bi nag boole ca sax ne da nga cay am tuyaaba saxaaba yi na ko ah am bànneex am tuyaaba mu ne waaw xoolal bu ko defoon fu xaram kon soxna si yem ci borom këram la muy séq moom mi ngi ci am tuyaaba borom kër bi yem ci soxnaam la muy séq moom mi ngi ci am tuyaaba ñooñee kenn yeddu leen boroom bi bàyyi loolu daa jël nag walazina hum li amanatihim wa ahdihim raun ak ñi nga xam ne seen kóllëre mooy kóolute gën leen wóolu ñoom dañ koy sàmm mbokk kóolute gi jëkk mooy li ñuy yàlla subhanahu wa taala gàll ci jaamu yàlla inna aradna al amaanata ala alsamawati wal ardi wal fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha al insaan yàlla moo yónni ci yow yonent teg ci yow kóolute julli waxtu juróom weer weeri koor sangu janaba ak lu mën a doon loole doomu aadama da ko war a sàmm gannaaw ba kuulute yi la sa morom mi doomu aadama jox dang ko war a sam yow mi nga xamee ni nii yow yaa yor keesu magasin bi keesu association bi keesu jakkaja keesu réew ma keesu lu mu mën a doon loolee amaana la boo xamee ne nii bépp dërëm bu dugg sa loxo yow mën xiyaama dang ko justifier ci kanamu borom bi subhanahu wa taala di mbir moo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax war koo ragal bu baax bokk na lu ndawul jullit war a ragal ci dundam gérer alal lu dangereux la amma nag bu la yàlla mayee nga mën a gérer alal jaare la ko fa yàlla bëgg ci jaamu yàlla yi gën a mag la def jaamu yàlla yi gën a mag la bokk waaye ak ji fi sunu jamono yi tey tey jii am na benn mbokk bu ñuy loon fii ci jàkka ji yor commerce bu dox gannaaw ba commerce bi daanu mu ne ma imaam jeexal naa ndawi sama famille jeexal ndawi sama famille jabar xale yi ku ci wóolu mu ñëwee rek balaa un mu def lu ku boo xam ne mara day taali loolee mbokk benn musiba la boo xam ne day yàq société loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ana tey kan moo ñemee jël ay millions jël ay ndaw jox leen ko ne leen liggéey leen ci lu bëri ci nit ñi ñemewuñ ko lu waral loolu mooy doomu aadama yi jàpp nañ ne lu ñu leen géré ñoom ñoo ko moom ba loolu déedéet amma amaana nit ki da ko war a sàmm ci lekk maa ngi am sama benn waaye professeur ah, Badou Gueye yal na yàlla sàmm ko mu may lii ne ma démb rek ne ma imaam ah, dafa am benn mbir boo xam ne daal dama ne woon dinaa la ko wax man yàlla dafa ma nattu maa ngi jàngale université mi ngi bëgg a yàgg nee na ñetti kaa la am ci élèves yoo xam ne dañ ñëw ci man ak seen note ne ma monsieur ah, note yi nga ma jox fii danga nga juum point yi nga ma jox yi nga yi nga noté dafa ëpp li ma waroon a am nee na ñaar ñi xale yu jigéen lañu yuy muuru kenn ki benn jeune ibaadu la xoolal mbokk jullit nee na carrière am ñett ñii la mës a gis ñu mësa a ñëw amaa bés bu nekk nag da nga jot cinquante yoo xam la ñuy revendiquer point yu manqué amaa ki ñëwoon monsieur li nga noté dafa ëpp nee na ci ñett ñooñu la ko gis mbokk xoolal ñoo ñëkkoon ku leen joxoon réew mi ndax réew mi du dox mi ngi noonu. tey jii ñun ñëpp d' nañu suñu réew yi la téemu dox du dañoo ñàkk ay ressource waaye kan mooy gérer ressource yooyu mooy suñu problème loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw ba suñu borom yàlla ne ak ñi nga xam ne la ñuy diggante dañ koy def loolu ñu bàyyi ci xelit mbokk dikk bu dee ne dañ naan digge bor la xam leen ni dikk la ma nga jëkk a nekk bor sa diggante ak sa borom lépp luy ma Masamba di ko digganteeg Kumba xamal ne suñu boroom mi ngi leen di déglu boo ko matalee yàlla gërëm la boo ko matalul danga nga daje ak la nga xam ne mooy meram kon ñu wattu loolee la nga xamee ni ni moom la ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala teg gannaaw ba mu wax dig yooyu boroom biir it subhanahu wa taala ak ñi nga xam ne day seeni julli dañ koy wattu mi ngi waxoon ñiy toroxlu seen biir julli gannaaw ba mu daal di tëji ne ñi nga xam ne dañuy wattu julli ya toroxlu ci julli ak wattu julli bokkul wattu julli mooy nga fexe ba def ko ca biir waxtu wa su waxtu wa paase boo toroxlu woon na nga xam ne noonu la yonent bi doon toroxloo it fekk amoo benn ngant yàlla du la ko nangul sàmm gi mooy nga def ko ak laab ga sàmm gi mooy nga fexe ba bu dee da nga bokk ñooy dem ca mbooloo nga dem ca mbooloo ma ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy sàmm seen julli mbokk nag melokaan yi ñi ko dajale ñoom la suñu borom ne àjjana ji gën a kawe mi firdaws buñ ñëwee falaa leen di wàcce ñu daal koy donn ay kenn du ko nangooti ci ñoom mbokk àdduna loo fi moom da ngay dem bàyyi ko génération yi topp sa gannaaw donn ñeneen dem génération yi tàpp sa gannaaw donn ba yàlla muy mujj kiy donn amma alaaxira la la yàlla jox kenn du ko donn ci yow gannaaw ba it la yàlla jaglee loon yéefiir yi ci biir aljanna yàlla da koy may ñu dugg àjjana boole leen ko ñu donn la yéefiir yi yeyo woon ulaaika humul waarisuun allazina yarisuna alfirdaws hum fiha xaalidun ñoom dañuy sax ci loolee ba faw ngalla waaye ñun ñépp bu ñu delloo kër ga nañ nafaraat bindi bi bu doon dañ fee daje tafsir bi dara tax lu ñu daje fi lu dul bindi bi jaroon na ko ñoon ñépp nañ ko nafaraat ngir yee bokk ca daraja yey gën a kawi ca mooy ñey dëkke firdaws yal na yàlla boolu ñu caag bépp julit mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fikum <coughs> suñu boro mu ni <coughs> walaqad xalaqna al insan ca dëgg day ñun ñoo bind doomu aadama min sulalatin min tin ci loo xam ni dafa nekk sulala muy extrait lu ñu génnee ci dara mu jóge ci ban summa jaalnahu nutfa gannaaw ba ñu def ko benn tuqumaniyu fi qaraarin makiin ci benn saxuwaay boo xam ne buñ ko fa dalal la summa xalaqna summa xalaqna nutfata alaqa gannaaw ba ñu jël tuqumaniyu boobu def ko benn lumbu deret bu wékku fa xalaqna al alaqata mudaxa lumbu deret boobu wékku woon ñu def ko benn lumbu yàpp fa xalaqna al mudaxa isaama lumbu yàpp boobee ñu def ko mu nekk ay yax fa kasawna al izama lahma yax yooyee ñu muure ko ci aw yàpp summa ansha'nahu xalqan axar gannaaw ba ñu daal di koy sos ci beneen façon mbindin fa tabaraka allahu aka kawe ca barkeel yàlla ahsanul xaaliqiin ki gën ci mboolem ñiy bind summa innakum baada zalika la gannaaw loolu lépp da ngeen di doon di aji dee thumma innakum yawma alqiyamati tub'asun gannaaw loolu yawma alqiyama ñu dekkal leen wa laqad xalaqna fawqakum sab'a tara'iq bind nañu it ci seen kaw juróom ñaar ci ay yoon ay juróom ñaari asamaan wa ma kunna anil xalqi ghafilin te ñun day nekk ñu ci suñu ci mbind gi di loo xam ne ku koy sàggana la mbokk suñu boroom bokk na jubluwaay bi gën a rëy ba alxuraan ñëw di indi mooy gëmloo nit ñi ne allaaxira am na loolu nag moo tax lu bari ci yéeféer yi la tax ñu weddi allaaxira mooy doomu aadama bu dee day dellu ci suuf nekk poussière kon ko mel noonu nan nan lay dekkewaate suñu boroom nag diñu xamal ne ci suuf ngeen jóge seen baay aadama ci suuf laa jël bind ko looloo tax doomu aadama yi mel comme suuf rekk am na ñu ñuul ñi jaune ñi nangam suuf it day am baladu tayyib suuf bu baax suuf bu bon suuf kaza noonu la doomu aadama mel seeni jukko kon seen bàyyi aadama maa bind ci suuf gannaaw ba mu wëlbati ko bind njabootam ci loo xam ni daanaka ña ca génn mooy Hawa mooy di leen jël ci la nga xamee ni ni mooy ëmb boo xam ni dafay dem mi ngi noonu ci doomu aadama yi yaa ngi commencé nutfa muy toq maniyu gannaaw ba nga jaar ci benn cycle deret toq maniyu boobu yonent bi aleyhi salaam ne ne 40 jours nga ci nekk mu wëlbatiku suñu borom soppi ko muy deret 40 jours après muy 80 jours gannaaw ba suñu borom yàlla def ko muduxa wudu xaboo bi loolu doon loo xam ne awul dogu yàpp la bu ñu sàqami loolu arab doon wax mudduxa niñ leen koy waxoon ci tafsir yi passé tey bi ñu ko jëlee dugal ca laboratoire effectivement day mel ni ay bëñ doomu aadama moo ci nekk mu nekk mudduxa mudduxa boobee suñu borom yàlla nee na da koy wëlbati ko def ko ay yax gannaaw ba mu wëlbati ko waat commencé ko nag beneen façon bindin beneen façon bindin ca mooy commencé nag di changer na doon ñi dañu nek ay nit ñi xar ñi nangam gannaaw ba ku nek yàlla may le bindin go xam ne yow rek yaa ko yeyoo mbokk suñu borom lim dalay bind adama ba ila yawmi diin bindul ñaari nit ño xamne ben lañu am déet doomu adama bu nek amna lu ko remplacer ak moromam motax mu ne khalqan akhar képp koo xam ne yaa ngi sosu ci àdduna xalqan aaxar nga mooy beneen façon bindin la boo xam ne yàlla mosul bind ko mel na yow abadan loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu boo demee ci wàllu fiq dañ ko fekk boroom xam-xam yi di wax jigéen kañ la ñuy wax dafa avorté lu bari ci ñoom dañ ne day fekk ne passé na ñaari cycle yu jëkk yi mooy def na 40 jours nutfa 40 jours alaqa ba dugg ci mudduxa su demee ba jege ay quatre-vingt-dix jours su dee dafa génne ëmbam dañ naan kii dafa génne ëmb dañuy teg ci moom attey ku wasin ci ñàkk woor ci ñàkk ànd ak borom këram ba baa muy laab amma bu dee avant quatre vingt jours ca la génne ëmb ba loolu dañ naan deret bu yàqu la bu ko tey di jullee ko woor loolu ay yeneen ahkaam la yu aju ci walla fiq waaye suñu borom moo la jële étape par étape borom bi subhanahu wa nag nee na gannaaw loolu dangeen ngeen di dee amma saar bi ñuy génn jaar na ci yeneen yi ñuy jaar danga nekk benn liir gannaaw ba nga am sa kattan gannaaw ba nga dem màgget gannaaw ba nga dee waaye li tax yàlla tudd dee gi fii it am na ñoo xam ne seen biiru yaay la ñuy dee am déet ñoo xam seen biiru yaay lañuy ñuy dee fii yàlla ëffi ci ñoom ruux ci quatrième mois gannaaw ba la ñuy dee mi ngi noonu soo demee ci borom xam-xam ñoom at beneen ixtilaaf waaw gannaaw kat ma def nañ ci ruux juddu na dañ koy sangam duñ ko sangam ila axiri waaye ala kulli xaal doomu aadama am nga quatre mois sa biiru yaay fan yooyu ci la yàlla di def ruux yàlla mën naa dogal nga dee si biiru yaay yàlla mën naa dogal nga dem téeméeri at doog dee waaye dégg mënut ñàkk de looloo tax mbokk. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla jëkk a joxañ baaraam ne ko innaka la mayitun wa innahum mayitun da ngay dee dañuy dee gannaaw ba yowmal qiyaama la ñuy dekki ñun nag déedéet sëñ Caam deewul sëñ Sàmb deexul yonent bi alayhi salaam deewul am na daje yu bari yonent ba ak saxaabaam ñu ngi ñëw déggee fekke si yéen a ngi koy déggee waay mi ngi noonu sama oto bi bëgg a daanu alub koñ su ma ne yaa sëñ Caamoo sëñ Caam am na kàttan ñëw redressé sama ila axiri loolu suñuy wax rek la mbokk ki dee dee na yowmal qiyaama la yàlla subhaanahu wa taala di ko dekkal ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi bàyyi loolu daa di ne bind naa ci seen kaw juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari asamaan yoo xam ne nee na asamaanu benneel bi ci la taaral ci ay biddiw la ca kaw scientifique yi yàlla may ay observatoire duggagul seen xel kon mënul dugg seen xel ñun borom boobu nag subhaanahu wa taala ne sàggane ma samay mbindaa fan ey yow doomu aadama bala ngaa woo sëñ caam bala ngaa woo sëñ sow ey waaye wol sa borom nee na sàggane wu la sa borom mi ngi lee saytu sàggane wu la ci bam lay def toqamani yi si biiru yaay sàggane wu la woon de fala la fekk wëlbati la def la toqamani yi mudra isam ba génne la kon sàggane wu la de tey mi ngi nii moo gàdd sa wërsëg moo gàdd sa dund ba sa biir yaram suñu borom sàggane ko tey jii scientifique yi dañuy wax ne doomu aadama dana am lu jege cent mille milliards de cellules ñu ne chaque jour chaque jour lu jege 50 milliards ou plus de cellules dana de yeneen 50 milliards ou plus remplacer ko loolu mbokk lan lañuy lan lañuy jàngal moo dina ne tey jii yow bi nga duggee ci jàkk ji bala ngaa génn rek yàlla may ne la plus de 2 milliards de cellules ndax yàlla sàggane na la sàggane wu la kon sa borom mi ngi lay taxawu zahiran wa batina bu la bàyyi woon tarfata ay nin nga jóge fi looloo tax jullit ñi dafa dañuy war a doyloo yàlla wékku ci yàlla gannaaw ba nag la borom bi subhanahu wa taala wax ni naam kon ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu mottali wa anzalna min samaa بكم سني بروم سبحانه وتعالى موني وأنزلنا من السماء ماء ننو واتي جيلي تيكو أسمان أمدخ بقدر تي أب كم بنوكو كملي فأسكنناه في الأرض نداي دي كوي سخل تي بير سوف مينونو دينتي كو تي سوف سا وإنا على ذهاب به لقادرون تي نون دي نجير يوب ندخ مومي لو تي أم كو تي كأم كتن لنو فأنشأنا لكم به جنات من نخيل تنون لنجا سوسي لنجا خمن ممي أي جردين تي أي تندرما وأعناب أك تندر أك جردين تي أي رزين لكم فيها فواكه كثيرة دانا لنجا نيل أي فريو بري بري ومنها تأكلون تشلو ليت تنين دلك وشجرة تخرج من طور سيناء بقنا تشير غرب غي جني tuuru sayna tuur mooy montagne bu am garab ba nekk ca sayna fa la ci sina yi ca boor yi Palestine tan bute bi dox nii nga xam ne dafay génne di la nga xam ne mooy ak diw di meññ ak diw wa sibirin lil akilin ak loo xam ne dana ko mën a diwoo ay ci mburu yàgg yu demee noonu ñeel ña nga xam ne dañu koy lekk wa inna lakum fi l an'ami la ibara ñeel na leen ci jur gi it la nga xam ne mooy xalaatiin nusqiikum mimma fi butuniha ñu ngi leen di nandal ca la nekk ci biiru jurgoogi wa lakum mi fiha manafiu kathira dana leen ñiil ci jurgoogu ay njëriñ yu bëree bëri wa minha taakuluun ca ci jurgoogu yit ngeen di lekk wa alayha wa alal fulki tuxmaluun ca ca kaw jurgoogi ak ca kaw gaal ya ca la leen yenu di leen yóbbu mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii ne moo wàccee ndox mu jóge kaw asamaan nga xam ne kenn mënu ko ko dul moom mbokk mi ngi noonu amul kenn ku mën a wàcce ndox ku dul yàlla ndox moomu moo koy wàcce ci kem ba ko neex su ko neexee yërëm ay nit yeme ko yeme boo xam ni daan ca mën a jëriñoo su ko neexee xañ leen ko su ko neexee sottil leen lu ëpp loole gannaaw ba ndox moo moomee suñu borom moo ñu ko dencal ci biir suuf ci kattanam yow miy nekk fii di jàpp léegi rek am na pompe bu nekk fii dañ koy branché ci suuf suñu borom dencal nañu ndox ñu pompe jot ndox tey nga dem foo mën a dem ci àdduna selon les profondeurs boo gasee suñu borom may la ndox loolee mën a maa ko denc noonu lañu ko dencal it ci ay la nga xam ne nii mooy ay lakk ay dex ak ay yeneen lu bëri ci waa Ndakaar ñi ngi naan Lac de kon suñu borom moo ko denc mu ne nag su ma neexoon ngeen xëy suba mboole mi ndox mu yóbbu ko te bu boobaaku ci man dara qul araaytum in asbaha maaukum xawra fa man yaatikum bi maa in maa in suñu xëyoon suñu borom lakk yeeg dex yaag lépp mu yóbbu ko à 10 000 mètres de profondeur kan moo ñu ko mën a génneel loole kon mbokk xéewalug yàlla la goo xam ne heure boo jëfandikoo ndox danga naan danga sangu danga arrosé ngal la way waxal alhamdulillah alhamdulillah mi ngi noonu baram boobu nee ci ndox mi laa génnee ay jardin wax ca yi gën a tedd muy tàndarma raisin ak olive yi bokk na ci garab yi gën a tëdd suñu borom mu ne da ngeen cee lekk frie yu bari bu dee ci olive booy da ngeen ci mën a génne ak diw bu ngeen di mën a diwoo di ci taal seeni làmp di ci mën a diw ci siini mburu mi ngi noonu gannaaw ba it suñu boroom wax jur gi muy nag giléem xar ak béy suñu borom nee maa ngi leen di nàndale ci biiram ca boo borom bi ne wax xalaat leen ci sëj caam day yeew am xaram indi saaku ngooñam teg indi paanu ndoxam teg xont leen nag beeg lu mën a doon c'est la chose ñu toog quelques heures nga ñëw daal di rat mu génne meew moo xam ne day weex tàll kan moo def ci biiru xar meeg nag bi laboratoire boo xam ne bi ñax mi ñëwee ak ndox mi moo ko jël analyser déchets ya mu yóbbu ko lee mu def ko ay nefere yee mu def ko sow génn ci meew moo xamee ni dafay set wecc weex tàll nekk la gën ci lu doomu aadamay naan ci kaw suuf ko def loolu mooy yàlla jalla wa ala muy aliment bi gën a complet boo xam ni tey jii médecin yi dañ naan ki am doom sax mën na toog 6 yoo xam ne bu ko jox benn lekk bu ko jox lekk bu ko jox sax naan meewu yaay doy na doom bi doog a judd pendant yoo xam ne du lekk du naan loolee kon mbokk yàlla suñu boroom yàlla mu ne nii laa leen ko defale ngir ngeen xalaat ci mu wëlbati ko waat ne may naa leen ci xéewal yu bari loolee dana koy wax suratu naxal aw aswaafiha aw baari a asaasan ila mbokk jur gi liñ ci mën a jëriñoo kenn xamul nu mu toll gannaaw bi ci ngeen di rendi di lekk gannaaw ba buñ demee ci giléem ya suñu borom yàlla nee ne giléem gaa ngi nii rattal nga naan rendil nga lekk bëgg nga tukki jëlal say bagage tek ci kaw mu yóbbu la ba fa nga xamné moy mooy fa soob yàlla li lépp ay ngeenel la yu ñuy dello ci la ilaha illallah ak alhamdulillah mi ngi nonu Cheikh Ousmane hamsalna muhammad ila qawmihi fa qala ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ñun yàlla day ñoo yónni woon sunu jàmba nuux ca xeetam fa qaala yaa qawmi ubudu llah mu ne ay yéen saw xeet jaamu leen yàlla maa lakum min ilahin gayru ñeeru leen kenn ku yeyoo ñu koy jaamu ku dul moom gannaaw moom afala tattaquun ama ndax du ngeen ragal yàlla fa qaala almalau allazina kafaru non la waxee notaabal ya nga xamne ne dañoo weddi won min qawmihi ca xetam ma haza illa basharun mislukum kii du dara lu dul nit comme yéen yuridu an yatafaddala alaykum da beug rek kawe kawe kawe lu ci sen kaw walaw shaa allah la anzala malaika su neexoon yàlla malaaka lay wàcce ma sami'na bi haza fi abaina al awalin kii li muy wax mosuñu ko dégg ci sunu baay yu jëkk ya in huwa illa rajulun bihi jinna nekkul lu dul góor goo xam ne ay jinne ñoo nekk ci moom rek fatarabbasu bihi xatta xiin a xaare leen ko rek ba ci jëmmi jamono qaala rabbi nsurni bi ma kaddabuun mu ne ay yàlla dimbali ma ci liñ may weddee fa awhaynaa ilayhi noonu la yàlla waxyoo ci moom ay xamal ko ne anis na il fulka bi ayunina ne ko defaral ak gaal <coughs> ci suñuy bët wa wax yi naa ak ci suñuy jàngale guñ jàngal jëmale ci muy wax yu fa iza jaa amruna bu dikkee la nga xam ne muy suñuy mbir wa faarata nuur <coughs> mu naa di nekk di ball place bañ nekk di ko lakkee ca fuur ba <coughs> fii fiiha tàbbalal ca gaal googe min kulli zawjayni isnayni ci bépp façon paire tàbbal ca ñaar wa ahlaka ca tàbbal ci sa njaboot illa man sabaqa alayhi alqawlu xanaa lu dul koo xam ne jiitu woon na ci moom kaddug yàlla ga qawlu qawlu minhum ku bokk ca ñoom njaboot googe wala tuxaatibnii fi llazina zalamu ca nuux nag bul waxee jëm ci man mukk ci ñi nga xam ne dañoo tooñ innahum muxraquun ñoom ñépp dañu leen labal mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii benn histoire bu muy baamu lu bari ci téereem bu tedd bi di histoire boo xam ni mboolem civilisation àdduna xam nañ ko juif yaak chrétien yaak ñeneen mooy li ñuy tudde déluge yonent yàlla nu nañu xam ni ñun ñépp mooy suñu maam ndax bi yàlla di labal suuf njabootam dong ñoo continuer juróonte looloo tax doomu aadama yi ñaari maam lañu am maam bu jëkk ba mooy aadam maamu ñaareel ba mooy yonent yàlla nuux borom boobu subhanahu wa gis nañu wax yu ne yonent yàlla nuux fekk xeetam ñi ngay commencé jaamu xërëm ñoo ko jëkk a def ci mbindaafanu yàlla yi mboola seen ñoo ci jëkk a commencé di jaamu leneen lu dul yàlla mu yónni ko ci ñoom <clears throat> ne leen nañ jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara ci loolu la notaabali yi jóg taxaw daaji na ko nuux <clears throat> ñun dey doo dara lu dul nit kese nga wax ak peuple bi ne leen kii bu leen ko topp dafa bëgg a kawe kawulu seen kaw ne mooy yónnente yàlla pour ngeen topp ay ndigalam yàlla bu bëggoon a yónni ci ñun malaaka lay wàcce mu wax ak ñun lii muy wax suñu maam yi mësuñu ko cee dégg loolu mbokk dangay ngay gis discours la boo xam ne <clears throat> gannaaw nuux yeneent yi tegaloo ba suñu yeneent yàlla muhammad discours bi ay notable am wax nañ ko ko na am moom la yàlla jëkk yónni ci yonent loolu moom dëgg la waaye nag yàlla kenn la du moo ko jëkk wax <coughs> kon ñoom lu ñu wax kii du dara lu dul nit koo xam ne ay jinne nekk ci moom loolu it nga la waay ne jinne dana dugg doomu aadama di ko wax loo lu mu tayul loole lu sax la kenn waru ko wedd mi ngi noonu ay jinne nekk ci moom xaar leen ko ba jimmi jamono lii bi mu amee suñu borom seetaan na ko mu daal di ne ay yàlla dimbali ma ci ñii liñ may weddee ngalla waay dimbali ma àtte suñu diggante suñu borom yàlla bàyyi na yonent yàlla nuux lu jege junni at ñu manqué juróom fukki at gannaaw ba nag la ko commencé jox ay ndigal ne ko nuux defaral benn gaal gaal goo xam ne ñun ñoo koy surveiller yàlla wax nañu am na ay bët dañuy gëm ne yàlla am na ay bët gannaaw ba ñu gëm ne dara melul ne moom la waala ñun ñoo lay wax plan bi nga koy defaree defaral gaal gi ba mu commencé defar gaal gi nag ñu ne ndof gan doon wax moom mi ngi nii teer na fii yépp amul géej mu naan day defar gaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ko bis boo xëyee ba place fuur bi ñuy lakke mburu nga gis na ndox maa ngi fay bëx-bëxi woowal ñi la gëm ñépp dugal ci gaal gi woo sa njaboot dugal ci gaal gi su ko defee euh, nag xamal ne danaa leen musal mboole seen lu dul ñi kàddug yàlla wéyoon ne ñii ay yéeféer lañ yu nar a alku ca nuux su ma defee li may def ba pare ña nga xam ne dañoo tooñ ba ma labal leen bul ma wax dara lu jëm ci seeni mbir mbokk lii kon ndigal la lu yàlla jox yeneen ci yàlla nuux léegi nag yonent yàlla nuux mi ngi noonu war a defar ak gaal walla woote ña nga xamee ñi ni yàgg nañoo dégg histoire bi xam nañ la ca terminé ñi nga xam ne it mosuñu ko dégg ñu def ak ñoom ni gaa yi mooñ sunu ndaw yi sunu xel yi ndaw ñi def mooy incha allah épisode bii di ñëw ci lool yi lañuy yeggalee di nga ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole ñëkk a gëm ca déggal ko topp la nga xam ne mooy sunu yeneen tàmm boole ñu ci ñay doon jannatul firdawsi al a'la wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, ah, ah, موتاي ارحم حالي يا